nangam nga gëm ko et tout moom laa lay wax yenn yi ñàkk gëm yàlla la dañuy dem ba dañuy fàtte yàlla ndax sëriñ déggoo lu ma la wax dara da lay dal sax nga war ko def ndogalu yàlla nga ne ni dama ko def ndax lan sëriñ yu bari yi mais sëriñ yi yëpp yëpp yëpp yëpp taxaw na Sénégal jël ko ba Sénégal jëlee ko bu ma doon ministre de laa la wax ñëpp laay jëli tëj leen parce que seen dil dafa feeñ da lay wan ni carrément ñi xamuñu dara yàgg nañ lekk xaalisu nit ñi te duñ leen defaral dara waaleykum euh, bi. man maa ngi tëdd Umar. man naka nga gisee bu xaaba yi génnoon ne Sénégal du qualifié sax quart de te Sénégal jël coupe man daal damaa jàpp loolu daal ñeme yàlla la koi parce que yalla mooy koy maye li nga xamante ne lu yàlla war a def yow nga génn volontaire nga naan lii du am comme yow yaay maye quoi donc yàlla wan ne ko ne wan na ko li mu wax du dégg ma may koy maye maay décidé wan na dinaa la xamal ne te incha allah Sénégal dina jël coupe bi te loolu la yàlla def parce ce que yàlla feeñalu leen pour que askan bi xam ne ñii kat li ñuy wax teguñu ko fenn te ñoom mënuñu dara. waaw xam nga nit ginnaaw du yaay maye yàlla moo la sakk ñi nga xamante ne ñoo dem uuti yàlla moo leen sakk ah donc def naa ne yow balaa ngay génne volontaire di naan kii du génn sax xaw ma quart de finale xaw ma demi finale te yow maye woo yàlla mooy maye def naa ne yow dangaa waroon naan ah man de loolu sama kumpa waaw nga noppal sa bopp parce que li nga wax tegoo ci fenn ñoom nañu dem ci jàkka ya di wirdu di jaamu ji yàlla quoi moo gën quoi nekk fii di wax li nga xamante ne tegoo ko fenn waaw man noonu laa ko jàngatee merci beaucoup. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, tur bi. man euh, Mohamed Sy. Mohamed naka nga gisee foo marabu yi génnoon naan Sénégal du sax quart de finale. bon mooy ñooñ dañuy wax lu leen neex rek mais gis nga nit ki boo demee bay wax da ngay wax loo xam ne lu la leer la. parce que yaa ngi wax loo xam ne si nga ne Sénégal du dem en tant que yow en tant que sénégalais sax da nga waroon yéene sénégalais yi même boo fekkee du dëgg sax ne leen Sénégal dinañ jël coupe bi yokk leen courage mais doo taxaw en tant nga taxaw réseaux sociaux yi yëpp ñëpp xam nu mu demee nga naan Sénégal du jël coupe bi tey moo ngi nii Cameroun du kurul moom waaw ñëpp démentir nañ ko xam nga mais lu gënoon rafet sax nga ne Sénégal moo jël coupe bi mais rafetul en tant nga ne yow sëriñ nga sax xam nga loolu rafetul encore daal man loolu laa amoon daal lu daal. est moo fañ rek seen deal bu ñu doon def jàpp nañu di nax di leen di def lu nekk. waaw seen deal bi tam day feeñ parce que kon loolu ba jaar nañ si kaw nit ñu bëri si affaire yooyu parce loolu foo mara bu change waaw ah oui. dégg nañ kenn sax mu ne moom dafa liggéeyoon na équipe nationale Sénégal pour bu ñu jël dara est-ce que kooku war ko topp sax. mais kooku bon ça dépend rek waaw yoon war na ko mën a topp parce que. xam nga lu wax loo xam ne tamit loo xam ne contre parce que non Sénégal lu bon lu ko yàq bon ñii dañuy defar ñii di yàq tamit loolu moo ngi si kon li ñu ko waxee rek yow tant que en tant que sénégalais sa yow fier nga nekk sénégalais dëgg waroo xeex Sénégal normalement loolu nekkul yoon moom franchement loolu kooku moom lu mu def moom di yoon moom. est-ce que Sénégal lu ñu jàppee sëriñ aussi yombul ku yor kaala rek kurus rek ñu ne kooku sëriñ la est-ce que waruñu xuusaal ba ci biir. non sëriñ dafa am sëriñ tari sëriñ ak sëriñ yoo xam ne waaw. seriñ dañ ko war a gëstu bu baax ñu xam ne kii mooy sëriñ ñu door a door si door dem si moom waaw mais am na ñoo xam ne moom dañuy yor seen kurus waaw sol seen grand bu yu mag ñu yaakaar ne kooku mooy sëriñ déedéet seriñ dañ koy war nga mun a xam bu baax nga gëstu ko ñu xam ne kii sëriñ la nga door a si moom waaw mu door defal la lu mu lay defal. maaleykum maaleykum salaam. Euh, tur bi. Mamadou jaata Diatta. Mamadou naka nga gisee faux marabout yi noonu Sénégal du qualifié sax quart de ñoo ñoom dañuy wax lu leen neex rek sax naa seen xalaat a nekk foofu rek ñu nekk foofu di sonal nit ñi xam Sénégal moom dafa bëri moom ay faux marrant faux marrant moom dafa bëri fii quoi mais tamit am na ay marrant mais boo gisee ñuy wax loolu yëpp c'était c'était des faux marrant moo waral ñuy wax loolu noonu la demee nag xam ñun moom ay sénégalais lañ c'est fête sénégalais xam nga xëy ñun supporté nañ depuis kan ba mu commencé ba nu mu jeexee supporté nañ def nañ lépp zibilé nañ dem nañ aéroport dem nañ fépp xam nga kon ñun amatuñ dara la ñuy wax gaynde yi gaynde yi moom kontaan nañ bëgg nañ ñi ñëpp a bëgg mais loolu moom mënul ñàkk si réew quoi man sama gis-gis. mais si jàpp suñu consommation ci dëkk que nit ñi dañu bëgg sëriñ trop ba ku ñu gis rek lañ sëriñ et tax ñu leen jox seen opportunité ñi yëkkati seen kàddu. xam nga fii moom dafa am ñu gëm sëriñ ñoo xam ne gëmuñu loolu mais man sama genre yi man man man wax dëgg yàlla man am naa sama sëriñ moom mais ay ay ay sëriñ yi nii man man man man du du ma mës jege te amul dara lu ñuy wax wax wax moom amul dara lu wax ba mu gëm ko moon xool kooku ànd lu mu wax dégg naa rumeur boobu noonu xool yooyu yëpp kooku moom dañ ko waroon fekk jàpp ko yóbbu ko prison moom kooku moom dafa yóbbu Sénégal noonu la demee nag. parce que ñoom aussi bu ñu demee ba yëkkati kenn si ñoom yëkkati nag kàddu ne liggéey na équipe nationale bu Sénégal te tant que demuñ ci moom ñu jël ko finalement yàlla jugé na. yàlla nag moo jugé nag coupe bi nag moom yàlla moo ñu ko jox ak suñu baax ak suñu xol yu ànd ñëpp. ndax boo xoolee yow boo xoolee ku d'Afrique woos ñëpp suñu xol dafa ànd looloo waral nag ñu am lii li xol yi ànd moo ko indi ak yàlla. am na ñoo xam ne moom dañoo gëm sëriñ moom am ñoo xam ne ñoom dañuy dañuy gis sëriñ bu dul wax dëgg sax sax dañ koy topp chaque jour am ñoo xam ne moom noonu lañ mel naturel mais am na ñoo xam ne moom am na ñoo xam ne moom xam naa moom seen dignité seen lépp moom day dañ complètement waaw noonu la demee nag. waaleykum salaam. Kobé sant yàlla alhamdulilah. yow lan nga wax ci faux marabout yi gars yi waxoon ne dañuy qualifier sa quart de finale. bon faux marabout yi man awma leen lu may wax ci ñoom parce que yenn yi yabaate la yabaate weesuwul yow doo yàlla doo yenent doo wàllu doo xut bu samaal taxaw naan sëriñ nga Sénégal lu jël lii du jël lii ba yàlla xëy indil ñu coupe bi man su ma nekkoon ministre de l'intérieur ñoom ñëpp dama leen jàpp tëj leen ci kaso bi. benn affaire tamit am na suñu mbokk sénégalais yi dañuy dem ba day mel dañuy fàtte yàlla nit dara daay dal sax nga war a xool suñu borom jàpp julli ba set jàkkaarloo ak yàlla ñaan ko mais noonu dara dal la nga war ko def ndogalu yàlla nga ne nit a ma ko def loolu yëpp yëpp yëpp yëpp marabu yu bëri ñoo ko fi indi franchement parler marabu yi bu ñu amuloon client du ñu bëree nii quoi waaw. est que du aussi euh, comme ni ko waxee tout la société bi ñoo misé trop ci li nga xam ne moo parce que sa bopp day métti sax nga dem si sëriñ mu ne la nangam nangam nga gëm ko et moom laa lay wax yenn yi ñàkk gëm la dañuy dem ba dañuy fàtte yàlla ndax sëriñ déggoo lu ma wax dara da daal dal sax nga war ko def ndogalu yàlla nga ne ni ko def ndax lan sëriñ yu bari yi mais sëriñ yi yëpp yëpp yëpp yëpp taxaw na Sénégal jël ko ba Sénégal jëlee ko bu ma doon ministre de l'intérieur laa la wax ñëpp laay jëli tëj leen parce que seen dil dafa dalay lay wan ni carrément ñi xamuñu dara yàgg nañ lekk xaalisu ni ñi te duñ leen defaral dara. sëñ boo xam dafay xar géej gi de mais finalement ba léegi daf ko repoussé. waaw kooku moom yaakaar naa ni foofu moom dafa wane ni foofu foofu moom dafa wane ni sénégalais yi ci boppam amuñu xel. loo xamante ni kenn rek la koy yàlla mayoon nit ñëw taxaw da koy def nga koy gëm non loolu manqué ñàkk xel la quoi waaw nit ñi dafa wane sénégalais yi carrément amuñu xel waaw. est-ce que jàpp nga ne ci lii Sénégal nañ ci euh, bàyyeekoo yeewu euh, euh, yeewu ba faw ah sénégalais yi moom wax dëgg yàlla ku ci wul ci lii sëriñ bu taxaw ba nga xamee kanamam mu wax loo xamante ne nii gis nga ni xaar xam nga ni carrément li du dëgg xanaa sëriñ boobu kenn sañu fa dem demati di ko yóbbul sax xaalis koo xamante ne gis ñëpp gis nañ ko xam nañ li ñu wax du dëgg ah kooku moom kenn du fa demati et puis ma bëgg waale benn appel ci président Macky Sall li mu defal Lions yi rafet na trop trop trop trop sax franchement parler waroon na def lu ko ëpp dafti ci trois personnes trois personnes yoy franchement parler bo ñu may lion yi waroon na dara. waaw euh, na nga def. ma ngi fi. tur Serif Ngom. Serif nak nga gisee ay yenn marabu yu génnoon na Sénégal du yegg sa quart de finale. ma on se bilaa min seetaan rajim maara yooyu noonu du sa si dama ne ne yàlla nee na laaw axlamu ba maa yoxoon na mbiram yalla la mbirum yàlla nit wur caa sorox di cay wax yàlla moo ko may nu am ko du mbirum kenn du mbirum kenn juróom benn fukki at ñu ngi wër lii tey lañ ko mas a am kon nag noo xam ne li ñu am tey nii juróom benn fukki at teel ko teel a ko yàlla ci dimanche bi du mbirum kenn du mbirum kenn du président du nit du sëriñ du kenn yàlla moo nu may daal nan ko sant yàlla suñu borom di wax ne alhamdulilah rabil alamina euh, tey euh, Sénégal lu ñuy jàppee euh, sëriñ est-ce que yombul aussi quelque part fekkee da nga jàng alxuraan mën a bind rek ñu ne kooku sëriñ la est-ce que ni ñu ko jàppee xawru woyof trop waaw kenn ku mu neex bàkku man naa lii mën naa lii mais nit ñaa ngi dee ci hôpital yi kon ñoom duñ fañ nit ñi ni gisari ci biir hopital bi feebar nekk ci biir hôpital bi man nga dara nga dem faj ko parce que yow waroo man dara xool sa mbokkam julit ne ci biir hôpital bi xol sa mbokam chrétien ci biir hôpital bi yow man nga faj yaa ngi faj jabet faj këris faj cardiaque fa man lépp man hémorroïde te mi ngi ni ci hôpital ndu du dem faj ñooñu ci biir hôpital bi sëriñ bu ci man na dem faj ñi ci biir hôpital bi daanteg laa jóge nii léegi balaa yaa ngi tëdd boo mënee dara man faj ñee mooy dëgg est-ce que jàppale aussi suñu société mom dañu bëgg sëriñ parce que da nga bu jigen bo xamné amul jëkkër dem ci sëriñ son bobu day metti nga dem ci sëriñ est-ce que loolu mo leen may aussi envergure bi nga xamné am nañ loolu beus la ci ñom ñoo may sëriñ yi bës parce que man li ñëw ci man rek pour man yàlla moo ko andi ci man léegi nag ki nga xam ne nii moom yaakaar na ne maanaam nit ki moo koy dimbali kooku perte na perte na adduna perte na yomal xeyaam lu ñëw yàlla yàlla doo nga fi nekk amul kenn ku fi nekk ku yàlla yaa ne kiraamin kaati bi ne mais yaram waa tafaalun ila abraaran la fi nax yi ma ngi fi la fi jaar yi ngi fi loo ñaan ci yàlla mu nangu yàlla loo ko ñaan mu nangu na muy jëw ci yow nag mën naa am du la arrangé mais li nga ñaan yàlla lépp day nangu ci ni muy nangoo mooy mën naa ñëw du la jig mën naa ñëw mu jig la loolu la yàlla wax yàlla am lu mu gàntal nit loo ñaan yàlla dina ñëw xanaa mu gën ci yow ngay ñaan yàlla ma yàlla may li gën ci man yàlla ma yàlla may li gën ci man la ñuy ñaan mais du question ne euh, affaire entre personne gisoon nañ fi ab sax di kunkaande waxoon na dina xar géej gi finalement mu repoussé ko et tout kooku te moom du ci dugg waxu waxam du ci dugg du ci dugg wax dëgg yàlla du ma ci waxam parce que man waxi dëgg rek waxam wax mais est-ce aussi yenn site internet yi am ci part de responsabilité parce que ñoom ñooy prévoir sëriñ yi ñooy ni jox kàddu et tout ma waxi kunkaande du ma ci dugg waxu waxam dama ko def ni bu nu ba ca dem waxam Mm-hmm. non site internet yi laa wax maanaam yenn site internet yi nga xam ne leen jox opportunité ñu ñëw di fa wax naan mën faj lii mën faj lee waaw loolu boo ko déggee mooy maanaam ku mu neex bu ma neexan tey ma ne mën na maa faj dara nit ñee daw di ñëw hôpital baa ngi fees dell nan dem faj ñooñu ma ne nan dem faj ñe ni ci hopital ba fee ku mën a faj demal faj ñee di ñe te la yaa nga fees dell loolu laa loola loola ci doolil bokk ku mën a faj na dem faj ñee oh, faana nga fees dell falaa laa jóge léegi nan dem faj ñooñu. léegi lay tëjee rek. wa salaam na def tur bi xaadim man Serif Ngom li ma lay tëjale mooy képp ku ci mën a faj na dem ci hôpital lal yaa nga fees dell amu fu ma entré nan dem faj ñeneen ci bi ku ci mën a faj danoo man dara.